ñu sant la bu baax gërëm la ñaanal la sunu borom ñun wax sax indiwuñu fi ubbil sëriñ Babacar rek moo ñu fi indi waaye yaakaar naa ne li fi imaam wax li ma wax bi may commencé dootuñu fi wax lu ko raw xamuñu ko sax ndax moonu man moonu raw waaye dadi ñoom dañ maa xam ma xam leen rek xam naa ne loolu moo tax ñu bëggoon ko waaye wax naa ci bi may commencé ne xaju fi beneen yoon nag incha allah danañ fi ñëwaat ci kàttanu yàlla waaye tey moom Serigne Babacar la ñuy ubbil rek mu wax bu beneen yoonee nag lu fi waay saam dinañ ko tas tasaare ko nar ko saam ko jox ku ne wàlla mu ñibbi kon sëriñ Babacar bismillah mbokk yi asalaamaaleykum. salaam. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant. man de rëccuwuma lu ma doon xamante ak yéen rëccuwuma ko ñu ñëw fi ci sunu turu kilifa di sunu turu responsable di ki nga xam ni tey président Macky Sall daf ko wóolu jox ko ndombo tànk boo xam ni du mom rek la ko jox muy doxal waye jox na ko ko mu am yaakaar ci mom am sañ-sañ ci mom muy le directeur général de la poste di xaritit ci tala Diagne bi nga xamni mom moy mooy meeru waye di xaritit ci ki nga xamni mom moy xalif général ba waaye di xaritu dëkk bi muy Pape Siré Dia bi dëkk Thiès moom ci turam laa ko fi teewal tey ndax Touba Gueye Touba Gueye ñépp la waaye Touba Gueye Touba Gueye président Macky Sall la waaye Touba Gueye Touba Gueye Talla Diagne la waaye Touba Gueye it Touba chef de village bi la kon tey bu ma ko fi teewee mu ni mën naa ko ñëwal santal ko waa Touba Gueye gërëmal ko waa Touba Gueye renouvelle ko renouveler ko confiance am ci Touba Gueye kon loolu DG Siré Dia su ma yabalee ma tëb ay kilomètres ñëw fii ci Touba Gueye kon cela veut dire que Touba Gueye ñor na ko ni mu ñoree Talla Diagne noonu la ko ñoree ni mu ñoree Siré Dia noonu la ñoree président Macky Sall lu tax ndax bi may xamante ak dama leen xam ci daan seen doole. ci naaj bu tàng ngeen toog ci ñiy muuroo kol ñiy toog ci suuf ñiy toog ci ay basang ñiy toog ci ay ban ñiy taxaw ku ci nekk yor sa këyit yor seen leket Adja Binta Ndiaye nekk ci digg bi di lijjanti naan sotti ci def ci doxalal nii doxaleel nii di teg seeni boisson di naan kon loolu su ma ñëwee xam leen ci ma ñëw ne leen dinaa gën ñëw ànd ak yéen ndax góor baax na waaye jigéen baax na kon looloo ëmb jotaay bii tey te nag liggéey ci jaamu yàlla la bokk segam góor a ko mën a def asamaak jigéen kon looloo war a jotaay bii di jotaay bu tedd di jotaay bu taaru di détail boo xam ni wax dëgg yàlla DG Siré Dia lii ñor na ko te manit lii ñor na ma ndax man li Siré Dia wax ne ma naa ko ko doxalal moom laa koy doxalal su ma nee bu ma ko doxalal duma ko doxalal waaye bi ma ñëwee fekk Touba di doxal kon su ma àndeek ñoom di doxal kon yaakaar naa ni maa ngi koy defal son excellence président Macky Sall ndax confirmé ngeen ma ko te wan ngeen ma te man gëm naa ni Touba président Macky Sall dina ko en premier tour waaye it bi fi ñëwee passé wax wax bu am importance wax ngeen wax bu am solo waaye wax boobu it dama ko jël ñu en commençant par le président de la république en commençant par le DG de la poste monsieur Pape Siré Dia waaye en commençant aussi ki nga xam ni tey moom moo fi représenté wu président de la république muy taala Diagne ndax bii passé bu ñu fi ñëwee wax ngeen ni marché ñor na leen fii ci Thiénaba kon marché boobu leen ñu ñor fii ci ba yaakaar naa ni kuñ ci ëppale ku ne yaakaar naa ni Talla Diagne moom moom moom mooy première boo xam ni moom bu ci tegee tànkam ñu ñëpp dinañ ci ànd teg ci suñu tànk. kon ñu di ko yóbbantewaale au passage suñu sëriñ suñu xarit ak adjoint au maire te xam ni ñu ñëpp ñoo bokk président Macky Sall te ñii de ma gis nii duñu nax président Macky Sall xawma ko ku koy nax na waaye ñii bokkuñu ci ndax buñ ci bokkoon duñu fi toog ba heure bii kon dem nañu seen yoon bu yàgg waaye xam nañu ni man maan ci président Macky sàll Talla mi ngi ci président Macky Sall yéen nit yéen ngi ci président Macky Sall ñun ñi fi am ñep tok ñi nga and ci président Macky Sall kon loolu leen ñor noonu seen marché boobu ñu bëgg war nañ ko jàppale leen ci te yàlla tax parce que maa ngi wax ci télévision te télévision bi may wax président Macky Sall dina ko dégg dina ko gis Siré Dia dina ko gis Talla dina ko gis kon ñu ñëpp ñoo bokk président Macky Sall kon li leen ñor ñor na ma kon am naa sañ-sañ taxaw fii wax ko te xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kon. monsieur le maire loolu yóbbante la rek boo xam ni ñoo ko bokk waaye it ñu ngi sant di gërëm bu baax suñu xarit muy Dame bi nga xam ni nit ku baax la di sama xarit waaye sëñ Abdou Sànq da nga wax wax bu am solo ci wàllu xam-xam ci wàllu expérience waaye ci wàllu diine ma wax la ci lenn rek mooy xamloo ni sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine dafa foogoon ni moom rek moo fi mokkal alxuraan waaye ñoo mook sëñ Cheikh Thiénaba ba ba ñu dajee sëñ Cheikh di jàng alxuraan keroog dafa jékki-jékki jël téeméeri junni jox ko sëñ Cheikh na ko man foogoon naa ni alxuraan man rek maa ko mokkal waaye gis naa ku ko dàq tey mu ñëw mu ne ko te fu ma la fekkati dinaa jox téeméeri junni moo tax fu mu mës a dajeeg Serigne Cheikh da koy jox téeméeri junni Serigne Cheikh ne ma man bu ma amoon lu ma gënal ci bis bi dinaa dajeeg Serigne Abdou ñetti yoon wala ñeenti yoon ndax def na ma ko ñaari yoon daje naa ak moom mu jox ma téeméeri junni ma fekkaat ak moom ci beneen jotaay mu jël téeméeri junni jox ma ma ne ah man de maa ngi ñaan yàlla dajawaat ak yow ci beneen jotaay kon alxuraan ci ñoom la fekk baax moo tax teewaayam fii teewaayu lislaam la kon mbooloo mi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ajaar Binta njaay nag jërëjëf moom munta waas weesu ba jërëjëf waaye maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm nit ku baax nga nit ku am pas-pas nga nit ku ñàkk ki ñaan nga ñi nga jiite nii de su du doon fulla doo leen jiite suñu amuloon ci yow yaakaar doo leen jiite ñu amuloon ci yow pas-pas doo leen jiite bu ñu la gëmuloon doo leen jiite yow bokkuloo ñi nga xam ne da ngay jiite avec seen xaalis di ci manqué bokkuloo ñoo xam ne da ngay jiite avec wala da ngay yor xaalisu avec ñu naan Adja Binta Ndiaye jaar na fii jaar na fële yow làqatuwoo dawuloo foo jot yaa ngi may woo téléphone foo toll yaa ngi may communiqué ñuy communiqué te man ak yow kon loolu su amee tey jii loolu teraanga la te teraanga du tuuti waaye nag Maguette Ndiaye aussi au passage. maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm waaye it Adja Binta Maguette loolu mu nga xam ne moom la leen defal moom la nekkee biir Thiès Thiès mi fay faj daan faj ay bu mu gàccee Thiès teraanga ne defal na ko ay doomu aadama mais da ko doon nëbb Maguette Thiès ñëpp a ko naw Maguette cees ñëpp a ko gëm Maguette nit la koo xam ne tey bu meloon beneen melokaan kon du yàgg Thiès. kon hydraulique bee mu nek référence la fa way la fa te ken musul jël bat bu bon jib ko ci maget mi te yag na fa kon su ñewé ñu fekkante fi Touba Gueye lolu ñu suñu chance la kon nak wax yi bala muy gëna guddu gudd ñu ngi santat di ak bu baax. babakar Diallo commencé fi nga xamni bi nak fofo jara commencé ndax ab julit ku ko tek ci yoonu julit da da day sante yalla ndax Babacar li tax nu téye koog suñu téeméeri loxo Babacar dafa jëkkee ci noonu set li jullit gën a bëgg ndax Babacar mu daana nu julli di woor di ànd di booloo Babacar yokk ko première setala la nu jox akub sijaada jox nu omo jox nuy saabu jox nuy paan jox nu lépp loo xam ne jigéen soxla woon na ko Babacar Diallo jox nu ko kon Babacar Diallo bu nee dinañ and ak mom bu nee dinañ and ak mom babakar ci lu wer dama ni babakar sama nijaay moy mer bax nak lol, di dimbalee lol, waye nekuma won aper babakar ya ma taxa a dugg ci aper dama ni japp len babakar ya ma taxa a dugg maa ngi ni nabu malakuma tur ngi ci aper premier tour nanu gagné il ma laal ko ci munta ñak munta ñak ndax ya ko doxé ya ko waxé ya ko jëfé adama su ngeen tedé nelaw leen tuubaa ge yéne ko mom gis nga sama sama gorob bi sama gorob bi ne jaayam manam abdou gay dëkk jaayam bok ak yeen lepp yow ku goré ku bax nga nga ñew fekk ma sama kër and ak abdou wacce ko ñew wax ak man sa wax ju rafet ja di jàppale sandi jaay jarbaat bu bëgg nijaayam nga jarbaat buy jàppale ndijaayam nga la nga wax nga doxal ko di waxe Mani, man yow yi ak babakar jàllo yena ma tax ma japp ak sama téeméeri loxo ak sama mbolo sama mbolo ngi ni xaj bi ñewul dama ni fu ngeen nek no nga ca lu ngeen nekku ni ca jigen la way duma wor ñi may andal xam nañ ko bu wer waaw kon buma ko ne tay ma ngi aper mom dina xam ne ma ngi aper kon jere jef yow kula xam Touba nak noo tax mu xam la ndax ndey kan sa mbokka waaye xamoo ko woon noonu nga fekk nuy liggéey sunu liggéey neex la nga ñëw dugg ci noonu wax ak noonu ba ndeykan xam la nga xamanteeg ndeykan wax nga keroog ni ma defoon naa ndeykan Touba lay dëkk yow yaa wax keroog ni defe naa ndeykan la dëkk booba Touba gee la dëkk xam nga kon bi ngay def jëf leen teg noonu xamoo ko kon ndeykan bu la bëggee jàppale na ñëw nu jàppoo maak moom No anda jappale la jappale mer mu jam kanam ñi wax ne ñul dañuy jógee ties ñew Touba gi and ak suñu dom suñu xarit suñu responsable babakar Diallo babakar Diallo dafa jog ci tanku Sira ñew fi ndax Sira mom moom la ñuy politigal babakar Diallo lu muy yëkëti suba mo ngon Sira mu yëkëti ko té mi ngi koy doxal tank yo xamni dafa set wécc doxul dara lu lëndëm ndax bëccëg lay dox su jógee nag ñu jóg ndax dañoo bokk bëgg-bëgg politique kon tey jii suñu ñëwee Touba gi xamoon nañ ko ñëwoon nañ fi xam nañ ko miin nañ leen suñuy mbokk lañu bu fi su suwaatee tamit dafay gën a neex kon tey ji suñu xol dafa sedd ci nii ñu tooge fii ci bâche bi jàkkaarloog waa dëkk bi du luyu imaamu dëkk bi du bo chef de village bi du nuyu wa dekk bi yeb goor jigen mag ak ndaw wuñu ken di len wax ne ñun suñu tank yi tank yiw lañu bëgg tank bànneex moo ñu tax a ñëw fii wut ci tuyaaba ci oustaz Adama gey ñu len di gëna ñaax suñu bop rek ñun ñepp ay julit lañu suñu sañu tay wër wi du jeex ndax wër yi neex na neexay bo xamni rencontre yi def ci weer wi amuñu ko ci benn weer ci weer wii rek lañuy mën a gisee ki gisee bu neex bu mel nii ñun ñaar yàlla lii ñu fi oustaz waxal lii nañ koy jëfee te yàlla tax bu demee ren ba déwén ku ku ko jëfee di nga gis changement si sa bopp ndaxte yàlla moom dëgg rek la bëgg te dëgg moom la mooy yóbbu nit ñi fu ñu bëgg a egg kon nag dañuy wax ne lu ñu ko guddal ndax guddee na ba pare mais ñuy gërëm Binta Ndiaye Binta Ndiaye ba organisé affaire bi tey jii moom moom tey bis bi samedi bi paase nday kan moom moom moom bisam tey Binta Ndiaye moo ko moom benn leget la nag lépp ci benn këll bi dañ koy sotti kon nag gërëm nañu ñëpp sant nañu ñëpp ñaanal nañu ñëpp Babacar Diallo foo bëgg a yegg yàlla fa yàlla yeggale. wa rahmatullahi su ngeen gisee kàddu gi li ko indi mooy. ki nga xamanteni si moy Serigne Babacar Diallo nek ci ginnaw ki nga xamne moy DC pap Siratia wax deug yalla ñewon fi nak tay ci Touba Gueye ci ñewat bi nga xamanteni si samedi bële passé ñewon na fi samedi bi tayit it na fi wax deug yalla ñu doon laaj serigne Babacar ñew bi nga fi ñewon samedi ak ñew bi nga fi ñew tay ak it mbolo mu am solo mi nga xamne ñi ngi ci ginnaw lan moko waral waye nga and ak ñom ñëpp nak nek ci ginnaw pap nan nga def ba ñew fi ak it lan mo waral sa ñew euh, serigne Babacar Diallo. dam maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak sa sant maa ngi nuyu waa mbokk Touba Gueye yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm ma ñëw fi aussi ànd fi ak fort délégation ki nga xam ni moom mooy le directeur général de la poste monsieur Pape Siré yebal ma fi ak forte délégation ma ñëw fi teewal ko fi teewaleel fi aussi waa commune de Ouest teewal fi aussi waa bennoo bu Thiès Ouest ma am contentement par rapport ak li ma fekk tey tey teeru bi nga xam ne moom lañ ma teeru fii ci Touba Gueye muy teeru bu am importance am loo xam ni war naa ko mën a wax fii ci Touba Gueye parce que Touba Gueye nekk na dëkk boo xam ni dëkk bu am solo la dëkk bu am pas-pas la waaye dëkk bu am ngëm-ngëm la dëkk la boo xam ni aussi fulla la ñu am am fayda boo leen fekk see ci fulla ñu ànd yoo ci fulla boo leen fekk see ci fayda ñoom seen wàll bopp ñu randal la ne ñun doxuñu ci ñàkk fayda ci fayda la ñuy dox kon tey ma ñëw fii tere fii son excellence monsieur Macky Sall lu tax ma teewal ko fi mooy que ni Touba Gueye nekk na euh, Touba Gueye nekk nañu ñoo xam ni tey ñoom ñëpp dañoo ànd nekk benn bi ma ci gën a neex mooy ñoom dañoo taxaw ni man maa tax tey ji seen xol de ci ki nga xam ne mooy président Macky Sall. waaw yaakaar naa ni cees yaakaar naa ni mokk na mokk goo xam ni ki nga xam ne moom mooy le directeur général de la poste muy Pape Siré Dia moom Thiès yëpp moom la ñu àndal Thiès yëpp ñu ngi ci gannaawam Pape Siré pourquoi mu jéggi Thiès ñëw tay ba ci département bi parce que dafa nekkoon lo xamni dañ ko fi defoon tête de liste départementale avec la majorité mu gagné ko ci élection yi passé mais Touba Gueye dafa bokk ci élection yi ñu ko gën gagné aussi pourquoi parce que Touba Gueye moy li ma wax rek président Macky Sall moom moo leen ñor waye tay fekk na fi ño xamni tay ji amna ci ño xamni anu ñu woon a Macky Sall am ci ño xamni ñi ñu ngi nekkoon ci yenen ci benen opposition waye tay ñëw bi nga xamni ñom la fi ñëw fekk leen fi ànd nañu tey en 100 pour cent président Macky Sall grâce à kan grâce à man pourquoi man mooy kan le DG Pape Siré Dia bi nga xam ni moom moomu fi yebal muy ki nga xam ne mooy seen responsable muy Adja Binta Ndiaye mii nekk fii tey jii. waaw loolu moo tax sànq biñ ma toogee ba xool xam ni ki nga xam ni moom moo ko war a def mooy le maire parce que yaakaar naa ne Touba Gueye dafa am maire te maire. moom mooy war a gérer affaire marché affaire hôpital affaire lu jëm ci côté tali affaire lu jëm ci côté ci bi dëkk bi ci walu suuf ci walu jakkay ci wàllu lenen ak lenen maire bi mom moy prioritaire parce que maire bi mom moo représenter le président Macky Sall kon lolou motax tay ji bi fi maire bi envoyer ñi nga xam ñom la fi envoyer man personnellement ma bokk APR mom le maire bokk APR ma lancé ko ne ko man en part en commençant par man en commençant par le DG de la Poste en commençant aussi le président Macky Sall ñun ñëpp ñoo bokk Touba gay parce que ñun ñëpp APR la nañu kon loolu tax ma ma lancé waale message boobu pour waxaale leen ko pour ñu mën ci gën a am taxawaay boo xam parce que le maire moom mooy pré moo représente président Macky Sall fii kon daam loolu tey jii man ci lay dox. le maire normalement comme dinañ ko renseigner ci la war a dox président Macky Sall aussi war na dégg lii DG Siradia aussi war na ko dégg parce que Touba Gueye dafa nekk dëkk boo xam ni man daf ma ñor. man personnellement daf ma ñor te ni mu ma ñoree noonu la ñoree le DG Poste te ni mu ñoree DG Poste noonu la ñoree aussi le président Macky Sall sama teewaay fii Touba Gueye c'est pas pour rien ma di fi teew ndax tey boo xoolee bëri na ay activités yoo xam ni à Thiès genn wàll yëpp mënu fa dem sama matin gis nga conférence yi ñu ànd di dem yëpp mënu ma fa dem mais tey dafa nekk prioritaire ci Touba Gueye conférence bu ne dem naa fa façon conférence bu ne dem naa fa waaye conférence bu mel ni Touba Gueye tey jii de man gisaguma ñoom dañoo fekk fu dara nekkul. te kenn mënu ko bay ñoom ñu ñoo bay ko ñoom dañoo fekk teen boo xam ni kenn mënu ko sëq ñoom ñu ñëw sëq ko maasale ko toog ci toog boobu ñu ci toog ci laa romb fekk la ñu toog ci ma xam ni foofu ñu toog teen la boo xam ni dafa xóotoon kenn mënu ko sëq ñoom ñoo ko sëq toog ci am fit ànd ak seen sago mën bay seen waar nekk ci côté tali bi di jaay ñii ñu ngi jaay naana léegi léegi gis nga kii jaay naana ñii ñu ngi jaay euh, euh, darkase ñii ñu ngi jaay mango ñii ñu ngi jaay ndamaras ñii ñu ngi jaay leneen ak leneen bëri na ci jigéen ñoo xam ne yaa ngi leen gis fi tey ji mais tey ji am nañu seen kër bopp yoo xam ñoom ñoo ko moomal seen bopp lu tax ñu moom wax parce que ñoom ñoo ko liggéey daan seen doole moo tax ma ni ca njëlbeen ñoom ñooy ay jigéen ñoo xam dañoo mën góor ba pare topp seen gannaaw jëkkër ànd ñoom ànd ak seen jëkkër seen jëkkër doole leen doole boobu nag seen barke jëkkër moo tax yàlla utul ma leen indil ma leen ba ci ñoom indil ma leen ma nekk ak ñoom ma fas yéene nekk ak ñoom nekk boo xam ni nekk gu rafet la nekkin gi ñaar la benn bi ci côté politique waaye benn bi ci côté diggante ndey ak doom ci noonu laay nekkee ñoom. waaw xanaa di wax ni rek man Babacar Diallo maa ngi ànd ak le de la Poste monsieur Pape Siré Dia parce que directeur général de la Poste moom soxalul ay wax. directeur général de la poste moom soxlawul ay information soxlawul ku ñëw di ko nettali moom soxlawul ku ñëw di ko wax soxlawul ku ñëw di ko xaajale soxlawul ku ñëw di ko sépare ay nit moom soxlawul aussi ki nga xam ne day ñëw di indi ay yàqu-yàqu xam nga lu ma soxla wut ay nit ay nit ñoo xam ne ay nit ñoo xam ne ñu diñ lañu ay nit ñoo xam dañoo yor seen i carte électeur tey jii ñii ko ci làmb tey jii mën na la génn sa carte électeur actuellement nii fii léegi léegi tey jii koo ci làmb rek mën na la génn sa sa quatre gis nga tout récemment am na ci mouvement boo xam ne ñëw nañu léegi-léegi loo xam ni tey fekk naa leen fi nee na ñoo maa ngi leen doon defal ay teranga bu yàgg sax fàtte naa ko kon tey ñii ñoo jar ànd àndal DG de la poste Pape Siré Dia président Macky Sall ñu mel nii la soxla dafa soxla ay nit la soxla politique ay nit la politique du ay wax politique du yóbbu information politique du caagane kan jàllale information politique du ñàkk nekk ci gannaaw nit di wax naka su dul noonu politique lan la politique da ngay sa dàll fekk nit ñi convaincre leen massifier aussi parti bi waxtaan ak ñoom convaincre leen ci ki nga xam ne mooy kilifa réew mi muy président Macky Sall parce que Macky Sall léegi kenn mënatu ko nax Macky Sall du ay wax moo ko mën a nax Macky Sall même man mii di wax nii ci télévision di ma tiim du caagane que ni moom li may wax ni sax mën na kaa nax Macky day xool li nga xam ni moom moo ko amal njëriñ li nga xam ni moom moom moo mooy sagoom ci wàllu nit ñi ku xool tey jii Ila Touba bii nga xam ni moom la fi def tey jii Touba Gueye ànd nañ ci tey jii bu ñu dem Touba du du du lu leen yomb lay doon tey ji ku xool aéroport bi ñu ñu ñu def fii Thiès fi jas tey ji Adja Bita ndey tey bu doon dem Makka fu mu fu muy jaar Thiès la jëm Thiès lay jaare dem ah bu ñëwee tey ji ah dañ koy dalal ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ko fekki ajaa Khady Gueye mi ngi nii ñooy ànd ak moom dem dalal ko yóbbu ko aéroport tey ji ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon loolu investissement président Macky Sall la tey ji mi ngi mi ngi def investissement encore autoroute boo xam ni day jógee directement Dakar dem dem Saint-Louis loolu la tey ji ñaata forage mën nañ ne bu ñu nee far forage tey ji ku mel ni tey ji Maguette Ndiaye mi mën nañu séddee ndax Maguette Ndiaye ci forage yi la nekk. tey ji ñaata forage de président def yokk na forage yi tey ji mi ngi ci plus de presque deux mille et quelques forages ah, ah, ah, n'est-ce pas donc loolu investissement la boo xam ne président Macky Sall mi ngi liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la kon ñun ñu ànd ak moom nekk ak moom yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu mi ngi liggéey kuy liggéey nag il faut ñu bàyyi ko ci réew mi mu liggéey continuer ay ambition am kon tey mën nañu taxaw ni gàcce ngaalama président Macky Sall waaye gàcce ngaalama salam aussi par DG Siré Dia kon dam jërëjëf ngeen jëf aussi quoi. waa jërëjëf mbokk yi bu ngeen déggé kàddu yoy mo roté won ci Babacar Diallo mi nga xamné mi ngi ci ginnaaw Siré Dia tay fi ci Touba Gueye fekk ci soxna yu bax yu tedd yi nga xamanteni ci ndaysan ku ne gis na taxaway yi nga xamné am nañ ko kon nak li nga xamanteni ci si mom lañu warona def def nañ ko waye suñ Babacar li mu def def nako ndax du c'est la première fois mu ñëw fi ñëw na fi ñëwati fi wax dëgg Yalla waye terang rek mom moko fi indi ku ne nak gis na li nga xamanteni ci mom la wax politique nekkul kay lañ ñu and xex kay lañ ñu and xulo kay lañ ñu and defar dëkk bi la ku war a defar dëkk nag boo ko tojee boo ñëwee doo fekk dara kon sëñ Babacar mi nga àndoon ak mouvement tabbu ak i wëllëreem def délégation boo xamante ne si wax dëgg yàlla jóge ba Thiès fekk si waa Touba Gueye kon nag Touba Gueye ñi ngi ci ginnaaw président Macky Sall waaye ñi ngi ci ginnaaw Pape Siré Dia wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu